ba Diallo na turbine yéen a kaay naan l'observateur déet neel président Macky Sall forcé nañu ab loi cib dooleem daal di yokku ab mandaam cib dooleem daal di toog ci siisam moom président Macky Sall cib dooleem te kenn mënu ci dara assemblée nationale nag ni ki démb daal di koy jàppale assemblée nationale bo xam ne dañu koo surveiller ba maar day taal yi yéen a kaayub dee bi turbine yéen a kaay naan bi fii ci réewum Sénégal dootul am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février waaye fukki fan ak juróom ci weeru décembre 2024 lay doon <laughs> lu masta am ni ki démb daal di ji am ci assemblée nationale ñoom élément yi GIGN ni daal di dugg ci biir assemblée bi daal fay génnee ay député naan leen alee le témoin mooy yéene kaay naan kon ci force kay ak i tënki député ci la ñu daal di wotee loi boobee ci assemblée nationale ngir woteelu loi boobee moom président assemblée nationale bi ci boppam dafa woo sandarma yi ngir ñu daal di génnee daar daar député yu opposition bi loo xam ne ma ni la gàcceel na taxal na salteel na démocratie réewum Amadou Ba ci boppam décret bi ñuy laam-laamee te gisuñu ko woon ne décret boobee moo daal di dàq corps électoral ya mu wo woowoon moom Amadou Ba signé na décret boobee mooy naan beneen laaj kañ moo ci des ndax am moom yëg na laaj ba mooy ndax Idrissa sek yëg na dàqub élection bi moom Bougane Gueye Dany daal dina ak lu ci mën a am ak ku yëg ak yëgul doore ko ñaari fan ci weeru avril moom président Macky Sall moom nekkatul président bu légitime bu réewum Sénégal njiital gëm sa bopp ci turbine yéen a kaay naan bu ko doonee nit ab président bu illégitime lay doon président xam ni ne Sénégal bëggatul bàyyi na wàcc na bugaan naan li am réewum Sénégal kenn musu koo gis te kenn musu koo dégg ay député yoo xam ne mani la jaar leen ñu jaar wax leen ñu wax loole de la ñu nekkee ci assemblée nationale ñoo daal di nag ne sénégalais yi yéen seen toroxtaange ak seen coono ci boppam du jeex yéen a yay jooy ñu ne waaye ak fi réew mi toll yow président Macky Sall nga ni nii Walf Fadjri daal di tëj Walf nga xam ni ab patrimoine national la laalaake kay la waroon doon ci réew mi waaye nag ndumbelaan la nekk néew fi doole doonub tooñ te daanaka Walf dafa mel ni ku fi néew doole ngeen jàpp dictature teg ko ci réewum Sénégal dictature nag ba ca gën a métti moom moo di borom siis bu yanq fi mu ne da ngay mel ni ku tàqalikook sa xel waaye xel mi bugaan naan kon sàll delloo si ko mooy dëgg bugaan géy dani naan en tout cas mobilisation laay wootee dooree ko ma ni la ñaari fan ci weeru avril bu mu nu jiiteeti critique yéen kaay naan man bugaan géy dane ngay dal ci kaw président Macky Sall l'indépendant yéen kaay naan kon déet da koy yedd l'évidence naan kon sa mandat bi ñaari fan ci weeru avril moo la fi bàyyi jeexee xamal ni yow Sall jiitee toonu ca waa grand place mu fay xam leen ni sénégalais yi nañu mobiliser ngir lankal président Macky Sall dogal bii nga xam ni jël nañ ko te naan opposition bi nan fi jaare ànd booloo lu ko mooy Sall ma ni la dinañu caxat caxatee fexe ba génnee ñu Sénégal gii nga xam ni ñoo ko daal di bokk ndax nag lii raam ci ñeg wi la jëm te bu fa amee kër du baax président Macky Sall day la mu nar ci ñun tey la mu nar ci ñun réew mi quotidien naan kon la mu bëggoon am na ko de assemblée nationale nangu na dàqub élection Sud quotidien naan kon cautionné na ko def na ko woo GIGN mu jàppale ko ca las yéen a kaay naan kon fii ak daanaka at la ñuy amalaat ay élection ci réew mi critique yéen a kaay naan kon forcé nan nu ko ba def nan ko Walf Quotidien naan leen cim gàcce bés bi le jour mel ni ku naan kon yaa yey de loi bu tol nii ñu daal di koy adopté ni ki démb ci assemblée nationale bennoo ak wallu daal di cey boole seenug doole te débat amu ca ñuy saagante ca assemblée nationale di fa kurpañente ba ñu woowi gendarmerie lu mel ni fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar 2022 amaat fa coow la moom moo di décret ba nga xam ni dañ ko doon laaj niki démb ba nu jàllalee seenub loi ba nuppi génnee décret ba député yi naan du fi amee ab motion de censure waaye tam daal di premier ministre mu ñëw toog ci assemblée nationale ñu daal di caxat caxatee internet daal di tëj wal fajri l'info naan kon bennoo bokk yaakaar ak parti démocratique sénégalais ñoo boole seen doole daal tayle nag ëllëgu askan wi le soleil yéen kaay naan kon moom président Macky deful troisième mu jox leen ngay dem libération ko Guy Marius Sagna ci yéene kaay bi naan kon kàccuk état la goo xam ne dañ koo def ci ndodduk askan wi Abdou Latif Coulibaly ci Walf Quotidien naan lii président Macky Sall def ma ni la moo yées fuuf ñetteelu mandat l'enquête naan kon moo taxit ndakaaru yëngu na waaye diiwaan it yëngu na ni ki démb Sénégal manifesté nan woon président Macky Sall ne ko sa jëf ji ànduñ ci l'observateur naan kon fi na ne ñu ngi jëm ci guddi gu bër setagul ci yéeg ak wàcc ci wàllu yoon ngir dàqub élection yi société civile xam ne dañuy tàmbali ak Wilmore ay grève générale ay campagne campagne digitale ay bëccëg yoo xam ne ñaan la ndax Sénégal soxla na ko turbine yéen kaay naan kon fi mu ne nag samp laaj dafa daal di jot ndax nag coow li coow li mani la Amadou Ba dana ca génnee akub candidature ndax nag te mbagg diggante Amadou Ba ak président Macky Sall mbaadu fii lay yem réew mi ko di yéen naan kon takkal téere de diggante président Macky Sall ak Amadou Ba moom jeex na ak gasi tàggoo turbine yéen kaay naan maan waxtu woowu association soxnay laayeen yi asfel daal di nañuy wuy ji wooteeg max digi daal di defu panel goo xam ne lu jëmalee réew mi kanam ci wàllu jàmm ak dal la ñu daal di waxtaane ngir waajtaay wooteeg Mahdi gi fii ci réewum Sénégal ci panel bii asfel wane ni soxna yi mën nañoo joyanti waaye tam defarum réew soxna yi laayeen yi ney fas nañu yéene dugal seen loxo ci wàllu koom waaye tam ci wàllu yarum njaboot gi lépp nag daal di tënku ci waajtaayu appel bi ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog Sénéinfo